gan gi Mamadou Sy Albert journaliste analyste politique doyen ñu ngi lay nuyu am na nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM euh, ni ñu koy amee saa su ne maa ngi lay fay Fatou. Mm. di am toujours di ñëw waxtaan ak yow. jërëjëf alors ñu war a waxtaanee ci actualité mu tàngoon jër nag démb ginnaaw ba Ousmane Sonko wuyu jee tribunal ci layoom ak Mame Mbaye Niang donte dàq nañu ko wante euh, yëf yi euh, fa mu mujjee ñëpp gis nañu ko euh, toj vitre otoom génnee ko yóbbu ko këram ba nu pitee ko génn ak yeneen ak yeneen yu ñu nemmeeku démb taskatu xibaar bi nga doon yàgg itam ci métier bi am ci expérience macha allah. ban jàngat nga def euh, ci xew-xewu démb bi. waaw luñ ci jàng daal mooy que bu njëkk moom mooy di diffamation la Mbaye Niang euh, waxoon que mu porte plainte Ousmane Sonko bon loolu moom yàgg na ci ci Sénégal mais quand même defe naa c'est la première fois que acteur politique porte plainte contre un acteur politique. Mm-hmm. loolu njàngat bu bu la euh, beneen njàngat bi nag mooy euh, lu mu jur mooy que tey ji euh, police force de sécurité yi lu ñu def Ousmane Sonko doy na waar jéggi na jéggi na dayoo parce que vraiment yaakaar naa lu loolu loolu violence bu rëy la ci Ousmane Sonko violence ci acteur politique ak suñu démocratie police bi ñëw di euh, toj vitre génne nit ki forcé ko pour mu génne ci otam yóbbu ko ba ci këram def ko résidence euh, loolu peut-être temps colonial bi lañ doon gis lool maltraitance boobu moom euh, respecté wuñu droit droit ak liberté Ousmane Ousmane Sonko. Hmm. bon ñetteel bi aussi moo di ne que fu ñu jëm daal. Euh, xaw na xaw na doy waar parce que bu ma déggee euh, conférence de presse euh, Mbaye Niang bi mu wax ak APR lu ñu wax mooy waxatuñu sax diffamation mais dañuy wax nañu arrêté Ousmane Sonko. Mm-hmm. ak di tëkku. voilà loolu loolu loolu kaddu boobu kaddu politique la. Mm-hmm. boo ko méngalee ak lu ñu force de sécurité def Ousmane sonk loolu mooy ñu ngi basculer. Mm-hmm. violence lu ñu doon ragal violence politique mu ngi ñëw ndax kàddu APR bi ak jëfin force euh, de sécurité yi loolu mooy dictature loolu mooy dictature mais tey nag euh, lu mu ci ci ci ndoddu Ousmane Sonko la dictature bi tegu mais lu muy ubbi mooy buntu euh, ku mel ni Ousmane Sonko nga nekk ci opposition bi lu dal Ousmane Sonko mën na la daal fii ak élection présidentielle donc euh, jaaxle am na euh, tiit am na bon ragal aussi démocratie bi euh, mu mu mu gën a laaj le recul démocratique société société bi wax na ko acteur politique wax nañ ko suñu démocratie daal ni mu ni muy doxee nii jar na nit ñi taxaw xool fu ñu jëm ak deux mille deux mille vingt quatre mm-hmm. lu romb démocratie boobu sax Pastef euh, artu na daal di woon euh, sàkk ci société civile bi ñu am taxawaay bi war ndax euh, dafa mel ni gisoon nañu lii muy ñëw Ousmane Sonko tey ñoom ñu jàpp ni bàkkanam sax mu ngi ci xottu gerte lan nga gis ni société civile bi war na koo mën a def fii réew mi toll ak situation politique bi. waaw société civile bi moom na na artu na artu wax am na ay organisation bind nañu CEDEAO nañu continuer art CEDEAO CEDEAO su mënee def commission ñëw xool gisal boppam lu xew euh, loolu defe naa seen rôle la beneen rôle bi ñu war a def mooy Nations Unies am nañu ay structures yi nga xam ne droit de l'homme lañu lañu la ñu sàmm ñooñu aussi nañ leen alerte wante alerte bi doyul euh, defe naa euh, lu lu ñuy ragaloon deux mille vingt et mu amaat ñu ngi am ay signes lu xew Mbàkke xew euh, Ndakaaru euh, démb ak fu ñu jëm euh, day wane ne que société civile war na def documentation képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci droit de l'homme da nga war a jóg enquête mën a documenter lu lu dal Ousmane Sonko démb ak lu xewoon fii Mbàkke xew deux mille vingt et un loolu nañ ko def document ñetteel bi mooy dem wax ak président Macky Sall war warutuñu xaar nañu alerte alerter euh, CEDEAO Nations Unies nañu def documentation mais nañu dem ci président de la République parce que moom rek moo yore tey jii nguur moom la ñu war a waxal bon beneen euh, dimension ci seen xeex aussi mooy que ne nañu toog ak opposition bi defe naa société loolu loolu la war a def mu bañ daal nekk ci ay euh, alerte ay na na def li mu war a def lu fu ñu jëm euh, warul bett kenn. Hmm. donc ñoom am nañu expérience waruñu xaar ba loolu ñëw dal suñu bopp mais nañu anticiper. Hmm. nañu anticiper ñu am vraiment un plan de travail cohérent ñu ñu dox tànk boobu. Mhm. Euh, fi ñu jëm warul bett kenn mu tiital ñu bari nag kenn xamul sax fi ñu jëm ba bu bu bu ñu waxee dëgg rek ndax euh, yëf yi dafa pëcc xondoo jamono ji yii di xew kilifa diine yi nga xam ne dañ daan wax ñuy dégg daanaka worma wi ñu leen joxoon bu jeexul it lu ca bari ruus na euh, yemoog itam réew mi metti ci ñu baree bari dund gi ak yeneen ak yeneen jafe-jafe yu askan wi dund li yëpp bu dajaloowee doyen lan nga jàpp ni moo mën a xew. tension dina gën a yokk ndaxte euh, soo xoolee gouvernement bi euh, Amadou Ba taxawal na gouvernement am jël na ay mesures def na ay conseil ministériel mais tey ji kenn waxatul waxu gouvernement amul amul fenn foo mën a wax ni gouvernement bi féete na foofu askan bi du affaire dundin bi du pouvoir d'achat du sécurité bon gouvernement de combat la ñu waxoon mais lu ñuy gis tey ji seen combat mooy contre Ousmane Sonko. Hmm. donc loolu tension sociale bi day gën a yokk de de moom moo tax euh, situation xale yi situation euh, des travailleurs de manière générale loolu tension la puis ak deux mille vingt quatre tension boobu mu ngi suñu kanam bon beneen fànn bi aussi bon moo diñu ko état bi nu muy doxee euh, benn xel démocrate warul daal ndaxte force de sécurité bu bu ñu ñemee dem agresser un acteur politique Mm-hmm. yaa ngi fii nga am président nga am premier ministre nga am gouvernement ñoom duñ ci wax dara dañuy féliciter armée bi ci li nga xam ne li jaaduwul bon loolu de ku kuy def politique soo ci bàyyul xel bon lu dal Ousmane Sonko dina dal ñu bari donc loolu aussi ci tàngee fonctionnement état bi nu muy fonctionné ni boo ci boolee nag justice bi bon euh, ñu nekk ci opposition bi amatuñu benn confiance ci suñu justice alors que justice moo nekk rempart loolu justice moo. Hmm, le dernier hmm. donc léegi suñu amul confiance ci président bi amuñu confiance ak euh, gouvernement amuñu confiance suñu justice même suñu force de sécurité bi am na fi mu féete boor waa loolu c'est c'est c'est c'est une situation de crise bon qui est là mais malheureusement malheureusement dafa mel ni daal gouvernement bi ak APR ñoom am nañu seen option bon opposition bi euh, xamagul fan la fan la war a jaar ba am dialogue xamatul euh, fan la war a jaar ba mën a discuter ak président hmm. donc mooy bras de fer ne dans un bras de fer défiance bi nag bon moo nar indi moo moo indi violence hmm. kilifa diina itam seen kàddu xëy na lam daan peese démb peeseetu ko tey ndax ñu bari jàpp ni xëy na danoo yenn saay uh, di weng jëm ci nguur gi uh, loola itam euh, mën naa yokk jafe-jafe. mais nitu diine yi c'est pour man politicien dañuy manipule dañuy manipule diine bon surtout pouvoir bi pouvoir bi saa demee euh, mu am tension religieux yi euh, dañuy intervenir mu accepter de discussion am conclusion mais gouvernement bi du applique dara hmm. donc dañuy utiliser euh, pouvoir religieux bi bon defe manipulation bi euh, manipulation politique moo nekk moo nekk moo nekk foofu loolu moo tax ñu gisee ñu discréditer nitu diine yi c'est l'utilisation du pouvoir politique pouvoir politique mooy manipuler les chefs euh, religieux saa yu saa yu leen soxle su leen soxlawul dafa dafa jege sax donc ça veut dire que y a maintenant crise bi ñu doon wax sociale ak économique et politique moom mooy affecte pouvoir religieux hmm. et, vraiment là il faut que nit ñi bàyyi ci xel suñu euh, discrédité euh, nitu diine yi dara du desiti hmm. Et, et, et, ça, il faut vraiment faire attention, euh, particulièrement par exemple société bi dafa war a aart utilisation de la religion par les politiques. Ça, c'est un danger. C'est, c'est un danger. C'est la même chose que l'utilisation de l'armée d'ailleurs. C'est de, de, la religion force sociale, force culturelle, force politique la mais boo ko utiliser mën na mën na indi euh, bon mooy taal dëkk. Euh, élection xëccoo élection ni muy taali dëkk loolu loolu la religion mën a taali dëkk euh, et je pense que nañu bàyyi nitu diine yi ñuy def seen euh, wareef bon séparer religion ak politique mhm. mais ku nga xam ne du tànkam mooy utiliser religion dans le domaine politique so yow di nga di nga taal dëkk bi mhm. alors élection présidentielle bu 2024 euh, xamuñu woon ban bës la waaye démb euh, yéex na yéexul euh, ministère de l'intérieur xamle na ni ñaar fukki fanak ak juróom weeru février lay doon ban élection ngay xaar ndax mbiram parrainage bi régléegul fichier bi itam du ñàkk ay wax jibati ca ndax ba tey liggéey ba ca waroon xëy na ak déggoo ba amu ca mbiram Khalifa Sall ak Karim Wade itam ba tey saafaraagul Ousmane Sonko itam demam wékku ci ñaari procès yi mu dëgmal bi ko dox bi dox digganteem ak Mame Mbaye ak bu suite beauté lii lépp doyen euh, tax ngay xaar ban élection présidentielle. waaw fu fu ñu toll nii moom lu xew nii euh, li nga xam ne euh, ñu ngi koy gis fu ñu jëm defe naa presque élection bi ñu gisoon deux mille dix neuf moo nara a amaat deux mille vingt que que président Macky Sall candidat la APR mu ngi mobiliser euh, Benno mu ngi mobiliser euh, répression bi mu ngi euh, accentuée contre le principal adversaire de, du candidat Macky Sall euh, donc scénario 2019 que majorité bi mën na gagner loolu la ñu préparé. Hmm. ñoom c'est pas Euh, seetuñu consensus euh, ci euh, processus électoral bi seetuñu dialogue politique lu ñu seet mooy gagner deux mille vingt quatre donc ñoom ñoo gën a préparer ñoom ñoo gën a am stratégie bu claire mm-hmm. soo xoolee côté opposition bi comme ni nga ko waxee ba bi boo éliminer Ousmane Sonko tey jii nekk principal opposant du candidat de de Benno Khalifa ak Karim du ñu am sax at pour préparer une élection présidentielle de, de amuñu les moyens financiers mais surtout les, les euh, la, la stabilité. temps bi sax duñ ko am. duñu am temps bi alors que élection présidentielle quand boo jëleen rek Khalifa même campagne yu muy def Khalifa tey ji xamul est-ce que dina participer est-ce que du participer. Mhm. kooku kooku xelam naka la mën a dale bon Karim waxu noppi ki nga xam ne il en exil et ça quand même un candidat présidentiel en exil mais mësul am ci Sénégal hmm. donc ça veut euh, position opposition bi en tout cas c'est pas une position confortable euh, ñoom nguur gi ñu ngi préparer ñoom ñoo gën a am maitrise seen seen calendrier hmm. même boo gisee euh, le fait que ñu annoncé date bi bon fekk waxtaanoo ak opposition bi jéemoo sax xool naka la ngeen di préparer élection bi bon c'est la charrue avant les bœufs vraiment man li ma ragal daal mooy scénario deux mille dix neuf ñu organiser seen présidentielle ñu gagné après tension bi euh, gën a gën a gën a yokk. Hmm. alors usman Sonko dana demam du dem lii xew nii yëpp aussi dal ci kawam politiquement ndax am na lu mu ciy gagné. no lu muy gagné c'est que bu demee nii Ousmane Sonko amatul amul feneen fi mu wéeru lu dul xeex ah, amul feneen. mu natt su taxawalee parti am ñoom mu am vraiment mu bañ a am sanction muy procès Mame Mbaye Niang ak euh, Adji Sarr euh, su suñ ko joxul peine euh, su yoon dalul ci kawam mën na gañe mën mën na gañe parce que su su fekkente moom bokk na c'est sur et certain que Ousmane Sonko moo nar nekk le leader de l'opposition le candidat de l'opposition loolu moom mën na ci am gain politique bu bu wante bon inconvénient bi mooy que soit ñu éliminer ko ñu condamné ko ci affaire Mbaye Niang wala ci Adji Sarr bi nu ko condamné du mën a bokk mm-hmm. donc il va être le grand perdant Euh, et je pense que daal euh, ça dépendra ci procès yi su fekkente ne moom euh, euh, am na non lieu ci en tout cas une peine li mm-hmm. nga xam ne mën na ko interdire usman Sonko va être de fait l'adversaire principal du candidat de, de la majorité de, euh, de la c'est vrai que aussi hein, euh, ça va pas être simple parce que il faut que Ousmane Sonko aussi xam ne que moom cote c'est ça va être extrêmement difficile que mu gagne euh, le candidat de Benno mm-hmm. il faut qu'il et l'intelligence quand même d'avoir une forte coalition. Mmh. Que, que, euh, loolu peut-être su amoon une coalition en tout cas des des grandes forces de l'opposition. Mmh. xëy na xëy na am na chance euh, gagner deux mille vingt mm-hmm. eh, liñ daan gis ci opposition bi rek tasaaroo nañu te demaguñu ci élection jërëjëf doyen waxtu wi dab nañu xam naa dinañu am yeneen jotaay incha allah mën a càmbar lii lépp di ñaan réew mi jàmm mujj ci ndax euh, njàqare moom dugg nañu baree bari ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. waa merci Fatou jërëjëf. waa merci Fatou jërëjëf. waa